Bienvenue sur Salam Vision. sama lim ba ba mu des finition ba nag raxas ma doo ko delluwaat machine boobu loolu nag baax na parce que jamono bii nii liggéey bi ni meloon meletul noonu ndax duloon naa neex donte que ñu ngi sant yàlla parce que liggéey yoo xam ne daaw ñu ko woon liggéey waaye daal vraiment ak dëkk bi ñu ngi mel moom bu affaire bi gën a baax rek ñu ne dox rek dinañu gën a neex taxawal um, oh, machine daa yëngu. na say biir wax nga ne da ngay dem machine ba. kon sa saa yi amoon na matériel yoo xam ne lépp mën ngeen kaa defaree bu ngeen mën. non c'est que am na machine yoo machine yi ñëpp mënuñu koo amoonoo fii ne parce que day am ay borom borom doole yoo xam ne ñoom dañuy usi machine jënd ko mbaa feneen bu ñu xam ci àdduna bi rek ñu andi ci def ko seen place parce que bari na ñuy defar ci àdduna bi yoo xamante ni machine mënu cee ñàkk a laal bu doon ca bu yàgg rek suñu maam yi ak suñu papa yi ñoom ñu ci ëpp seen loxo lañ ko doon defee waaye comme léegi jamono dafa dox ba jamono dafa modernisé daanaka lépp lañ modernisé moo tax léegi machine yi moo ñuy dimbali ci lu bëree bëri li may def nii li may taaj nii gaz laa jël monté ci saluma di ko taajoon li ñu dénk la waaw. da ngay di ko defar. waaw su ma kii su ma kii rek su ma yàgg laa koy teg encore de la ma tudd ci diyaas bi. waaw lii balance la parce que machine yi mënul ñàkk ndax boo xoolee bu dee comme dañ la tëgg bis démonté machine yi ñuy démonté su ma koy dàq ne pour mu mel nii gis nga lii dama ko defee loxo mais léegi loolu dafa yéex waaw léegi nag loolu dañ koy yóbbu ci lay a gaaw ci boo ñëwee daal di centre def ko nga koy centre bi mooy jëm bi duggee ci biir nga gis per bi ni moom koy kale bu ko du wàcc léegi nag après dañ ñu pare na raxas ko mu weex taal nga gal ni wéy mi bu ko lakkee te acide bi ko léegi si acide bi nag dina yi neex léegi nga nga nekkal kon saa gal ak jaaru gal ak jaaru xaalis bu weer. macha allah lan mooy xaalis rek. lan mooy différence bokkul ci. buñ ko tëggagul lay nekk buñ ko xeleegul dafay nekk ay teps ñu koy wax gal français. nga day nekk comme nii. waaw léegi nag buñ ko xelee. mais lii dafa ndiroo xaalis. mooy xaalis mooy gal. xaalis doo dégg sax ñuy wax xaalisu gal gis nga nii lay mel. lii mooy gal français. am na itam boo xam ne fii lañ koy seggee. ñu ko seegee togg ko mu nekk ngal seeg léegi nag bu ñu ko xeelee dañ koy def nii ndax leen lii nii moom laa xeeli mooy lii mooy wulu ma di nga tàpp ko firi ko bu mu ko dagg li yoon nag saaju saaju ko mu mel nii kon machine ba daal seen liggéey bi ñu liggéey am na solo bu baax non machine bi moom am na solo bu baax a baax déedéet moom kay moom daanaka mooy première machine dàq bi nii moom mooy première ndax suñu maam yi ak suñu papa yi noonu na ko seen loxo lañ seen loxo yi di mel ni tëgg bi yeex lool loolu la tëgg ci weer di nga ko tëgg si ñetti weer boo xefee loolu tëgg si ñetti fan di nga ko tëgg si weer daanaka léegi nag machine yi moom baax na si ñun lool loolu moo ñu dimbali fi mu eh, jamono moom bu dee dox na da ngay jéem a ànd ak moom dañuy dox ko defee nga mën a avancer. liggéey bi ngeen di nekk nii est-ce que liggéey bi métti na am na ay jafe-jafe yoo xam ne liggéey bi kay am na ay jafe-jafe yu nekk gis jafe-jafe yi fi mu tàmbalee mooy non seulement rek li ngay tëgg nii gal bi balaa nga ko am rek day métti ndax gal bi bitim réew ay Turquie ay France Italie ñu andi fii dañu ko jaay temps yële si ginnaaw rek dafa yomboon gal seerul woon mais léegi dafa moom ko gi dafa élevé parce que dërëm bi rek essence bi mu ngi mille cinq cent ba ay jamono àgguloon foofu gënoon naa mooy loolu ak bés bu liggéeyee ba pare itam deuxième jafe-jafe bi mooy jaay mi bu dee bu dee koo xam ni da ngay marchandise yi dem marché yi jaay boo demee marché bi ñu àll bi wala ñu laa fay mu yàgg ngaa jaay tam booy jaay doo am prix bi la gën loolu yëpp ci la bokk ak troisième mooy coono bi nekkoon na trop. ndax gis nga sama loxo yi ni mel. mu kay toogaay bi ah. waaw loolu yëpp ci mais liggéey bi dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax. ah liggéey bi waaw dinañ ci parce que li ñuy fee suñuy suñuy besoin ci liggéey bi lañ koy amee doonte que métti nag waaye ñu ngi ci bénéficié wu tuuti tuuti daal comme léegi jamono moom moo di moom mel noonu ñu ngi ciy tuuti tuuti rek. benn ngay jaay wala dafa am ñu lay commandé ngay defal bari di ko livré comme si dëkk yi ak si région. li si ëpp nag comme man damay dañ may commandé damay déglu benn waay si bëri dañ ma koy dañ may commandé may tëgg ay commande ay jaaro bëri léeg-léeg itam am ñu ñëw commandé ma benn jaaro ñaari jaaro ma tëggal leen mais lii ay marchandé ay juróo laa koy tëggal ñoo xam ne ñoom ñooy dem di jaay encore. te moom li ma dugg si marché bi di jaay bëriwul. gars yi ñoo ma teg léegi ñu ma commandé. benn façon jaaru bi rek ngay defoo da ngay defar or xaalis. waaw damay tëgg or di tëgg xaalis. gis nga sama rafet moom or lay. salaamaaleykum te xam naa li gën a moo tëgg xaalis jaaru yëpp laay tëgg lam jaaru nopp jaaru loxo. ak kër avant ngay ubbi atelier bi am nga feneen foo jaar. ah waaw man balaa ngay ubbi atelier bi nga am foo jaar. ndax balaa ngay jaar jaar. jógee dëkk bu ñëw Ndakaaru nekk si benn atelier di jàng métier di jàng métier ba fii ma toll ma bëri gën a sama bopp di liggéey ak moom. waaw. atelier bi nga nekk da nga siy def ay emplois. non atelier bi. liñ fi nekkee nii. kenn ku ne da ngay liggéey liggéey sa bopp am nga say client yoo xam ne. man maa war di laaj xam nga daal bu ma ko dénkaanoon fan la fan la fan la fan la perte. bu dénkaanoon fan la perte quoi. waaw man maa dina ko war a am benn kër am ma. bu ma dénkaanoon fan la fan la bu baax la mais gis nga dañu koo dañu koo yàqu. kii mooy sama sama mag bi sama grand frère. yu bëri nag ci marché bi defe na ni man maay maay kii bi maa ko waaye marché bi lan moo tax ak liggéey nekk Sénégal yow nga jël métier bi dañ la tàmbali ñu ci ngir. parce que métier bi ci laa jóg dañoo am Sénégal dafa am ay. nga mën ah, ah, a wax ne ah kii tëgg la kii ràbb la ah kii leneen ak leneen la bu yàq ñun ñu gën a fekk suñuy baay ak suñuy maam ñu tëgg ñu nekk suñu tëgg parce que comme mën tëgg sax nag waaye bu ma tëgg bi ba nga tëgg weñ tëgg nañ weñ def nañ jaar nañ ci sudal waaw après ñëw fii ñu def fii ci tëgg wurus bi ñu defoo comme sa morom yi ñu ne dugg ci gaal yi dem dugg ci gaal si ndox mi pour tekki ñu jëfee. dugg ci gaal yi bëri na nag ay risques yoo xam ne ñu amul métier ñoo koy dund parce que am métier dafa baax bu mu métier ci boo koy di nga am benn façon boo xam ne dañ ko mën a dund yëpp ma leen nekkul ci biir dafay na leen seen gis-gis la ak itam bëgg a faj dara te te mu xaw a métti mënoo koo faj.

léegi nag ñu bëri bëri danañ daw moo tax ñuy dugg ci gaal yi ak ñuy sàcc ak ñuy agressé ñëpp bëgg ñu am rajo waaye la toujours boo leen di waaye def lu ñu doon rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla ci. yan conseil nga leen wax ne moom dina bokk ci parce que gis nañ ne ñu si bari seen yaay ñooy sax da nga naan diw de doomam def na lii diw de doomam defal na lii. waaw xam nga rek lan ñu mën a toppandoo dañuy toppandoo dañuy wujje Sénégal day toog dëggul nangu dogalu yàlla nangu dogalu yàlla mooy nangu dogalu yàlla bañ dogalu yàlla ni ma mën a waxee wax bu boo nangoo ni yàlla moo dogal lii tamit da ngay nangu ni yàlla indi na beneen dogal wax mën nga caa jaar parce que dugg ci gaal bari nañu ko def jaaru de dem liggéey am xaalis am na ñoo xam ne jàll nañ dem liggéey amuñu xaalis waaye loolu yëpp risque la parce que dugg ci gaal moom ah, gaal néew ma gaal baaxul gaal baaxul mooy gaal yoo xam ni boo duggee di nga yegg waaye yooyu ñoo ko loolu yooyu daa bëriwul gaal yooyu parce que ñun fii gaal yi fi jógee daanaka dañuy nekk gaal yoo xam dañuy nappi ci géej gi ba màgg péntiraat ko daajaat ko rek dugal ci xale yi yóbbu bëgg na yóbbu espace ba loolu risque bu mag la ndax daal su ma sañoon dugg si gaal yi moom am xaalis neex na lool waaye dugg si gaal yi moom bu risque dëgg la waaye ñu si jaar yàgg na am na samay xarit yoo xam ne ci lañ jaar di ko nag ñu ngi leen ko kañam ngi di ñaanal yàlla gën a dëgër seen dëgëral seen taxawaay dañu yaakaar ba tax ñu dugg si gaal yi bu dinañ am waaye lu ci bëree bëri ñàkk ñu ci bokk na ci ab xeeb li ngay am fii ndax bu nekkee fii da ngaa xëy di am deux mille francs nga jël sa bët teg ko ci koo xam ne day am vingt mille francs ñu laaj bi ci leneen loo xam ne conséquence yi rek mën naa bañ a baax ci yow ñu lay bàyyi nga joxe sa numéro wax fan lañ la mën a fekk ku la soxlaa. waaw man maa ngi tudd Serigne Thiam dëkk dëkk bu ñuy wax Ndiéwél Fall ca Kajoor diggante Ndandal Kébémer boo fay la ñaar ma jóge fa ñëw Dakar xam naa yàlla booba xale laa ñëw nekk léegi marché Kondi bi yàgg naa lool def naa fi si topp ci marché bi. sama numéro téléphone ku ma ku ma soxla boo ma bëggee gis boo ñëwee fii ci marché Gouné marché bi moom xam naa ne siiw naa fi siiw boo xam ne moom boo ñëwee Serigne Thiam rek ñun la ñu sama numéro téléphone 77 427 26 58 427 26 58 wala 77 encore beneen numéro 77 910 57 70 ak numéro téléphone de mon petit frère 201 77 73. bu bëgg lu rafet boo bëggee xaalis muy lam muy jaaram muy seen lu mu doon boo ñëwee fii dinañ la ko tëggal incha allah di nga ci am président bu baax. ñu ngi nga loo xamante ni si ñoom maa ngi rek ko ñàkk na ko waaye wax dëgg yàlla rek lañ si bëggoon. ñu seen site bi yàlla yéegal ko te ñu doon TV boo xam ni ñëpp ko seetaan. yéen mbokki internet yi yéen a ko déggoon li leen indi doon tey fii seen émission tekki fi bu leen jox dig daje beneen yoon fii seen chaîne Salam Vision.